baax di leen baalu àq si koor gi nga xam ne commencé nañ ko ñu ñaan yàlla rek ñu commencé ko si bisimilahi waaye tamit ñu si alhamdulilahi rabbil alamin te koor gi yëpp eh, nangu ñu ko baax a baax waaye comme d'habitude à chaque fois nee naa ne l'homme de la semaine ndaanaan nañ fiy dalal tey nag ki a chaque fois boo ko tuddee da ngay tudd moo gét baax te loolu moo gét je sais pas après yëpp dañ si ñëwaat muy Mamor VIP l'homme VIP Mamor asalaamaaleykum. maaleykum salaam sama xarit bi. Mhm. maa sa wàccuwaay Mamadou. Mamadou. Mhm. maa lay siyaar di la jox sa wàccuwaay lu bëree bëri di nuyu sénégalais yëpp di leen baalu àq di leen baal àq ci weeru koor bi ñu dugg. Mhm. ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulilahi rabil alamin Mamadou amiin amiin jaajëf gis ngeen ko jàllaabe rafet na trop merci merci. ten ten nu ko nu ko ten gaay noonu. tey moom xam nga rek ko mélangé comme que si weeru koor lan nekk. Mhm. damay def jàllaabe def nii xam mël fa naari nii. xam nga waaw oyofal ko pourquoi Mame VIP. Imam Mor VIP benn jeune la ba nga xamante ne nii bu gëm boppam la. Mhm. bu dox si dëgg la quoi. Mhm. ku gëm liggéey la tamit te képp ku ko xam ku nekk ci liggéey nga ko xam. Mhm. waaw ak gérer famille ak njabootam quoi. yeah. mais gérer famille ak njabootam. mais dafa mel ni am na keneen koo xam ne tamit euh, yaa ngi koy gérer parce que bu ñu tuddee léegi Mamor. dinañ tudd kii di Mamor moo géet moo géet nu tax nu tax mu ñëw si si waaw moo benn jeune la ba nga xamante ne nii man dama jëloon samay décision mhm. jël sama am sama ambition ak sama yéene ci moom mhm. ah ñëw di ko défendre fépp si depuis coowal Viviane li ak moo mhm. boobu laa commencé di défendre moo géet man Mamour VIP ba yàlla dogal sax ñu bari moo moogeet lan may wax léegi dem na ba yàqaale sama tur bi sax. waaw ba moogeet lan may wax. je mhm. comprends nga mais yooyu bu ma ciy dugg tamit. Mhm. dama jàpp ne kii benn jeune la bu volontaire. je mhm. comprends nga ci réewam ci Sénégal di def lu baax. te ñam doon defal lu baax moo waraloon tey man ma ñëw volontaire pour mën ko défendre ci ñëpp. voilà. wax nga ko sànq da nga dafa dem ba yàq sama tur. waaw maanaam yàq tur ba dafa la neex wala dafa la naqari. no saa veut dire que ne tey moogeet lan may wax ngir jàppale bi ma koy jàppale. ci tous les moyens. parce que moo geet ñoo ngi xamante maanaam moom xamuma ko xamuma ko woon moom moom moom tamit xamuma woon mais bi ko ñoom Ketchup di classe ci di ko contrer ci vivian dal ci kawam laa jóg man def benn interview ne moo geet sénégalais la dañ ko war jàppale comme sénégalais yëpp parce que donc nekk fi mais mu ngi jël alalam di ko def ci réew mi voilà mm-hmm. loolu taxoon man man taxaw tey pour jàppale moo geet noonu la demee daal. après si après ngeen xamante maanaam histoire boobu mu passé yéen ñaar si ngeen xamante. waaw si ngeen xamante moo la contacté wala mhm. yaa ko contacté. moo géet man maa xëy di kin naan Babacar Diaspora. Mhm. et maa ngi ko nuyu mhm. moom laa yoroon numéro am. Babacar Diaspora di ko envoyé samay vidéo yaa ngi dégg moo géet di wër sama numéro Babacar Diaspora moom tamit moo ngi danga laaj booy bii nii def lii kan la. kan la su comprendre nga. Mhm. mais moom wax ko dara moom tamit mu bàyyi ko ci biir. Mhm. su comprendre nga bëggoon ngeen xam naa. waaw man je ne su <laughs> comprendre nga. Mhm. parce que ñun ñëpp one est jeune quoi ay Sénégalais la ku nekk la ngay dundee yow la engagé. su comprendre nga la mu ci jublu moom moo ko xam. après si la xëy am numéro Ekem Seck bi nekk New York. New York ñuy déggante ma koy envoyé vidéo yi des fois mu envoyé ko moom yaa ngi dégg ba un jour moo gét ne ko. numéro Mamour VIP laa soxla. Mhm. moo gét moom ma woo. je comprends que mhm. man nag bu ma koy défendre dara taxul woon ma koy défendre dama jàpp na kii jeune la kon man. Mhm. te ni mel wala lim am. mën naa ko am wala ma am lu ko raw parce que maa ngi ci yoon bi. su comprendre nga nit buy def lu baax da nga koy apprécier. looloo waraloon ma apprécier moo gét di ko jàppale si lépp. ba waral mu woo Ekem Seck ne ko numéro Mamour VIP laa soxla. après Ekem woo fekk may dem xel koom. ci toolu Serigne Saliou ndax ñun ay éléments Serigne Touba la. Serigne Touba rek lañ gëm Serigne bi woote. AKM jox ko sama numéro mu woo ma jotu fekk ma dem xel comme sama téléphone vidéo bu ma ñëwee la ma baal message si laa ko woo yaa ngi dégg. Mhm. ne ko kat man Mamour VIP maa ngi nii. Mhm. mu ne ma a ah, man kat boobaak léegi maa ngi wër sa numéro. Mhm. mais AKM Seck moom ma ko jox. ma ne ko nag dama la kereel benn fans club bu mag fans club bi mbot nañ cent personnes. su comprendre noonu daal la kaa bi demee mais est-ce foofu du du foofu maanaam sëñ moo jàpp ne kii kat euh, nekkul nitu dara parce que tamit sa jàppul intérêt nga ko toppee. parce que mhm. yéen leen nga daal ko créer benn euh, maanaam ay groupe fan si club. Mhm. pourquoi a créer fan si club mais pourquoi pas man ko loolu noonu. parce que dama gis ne kii kat waroon ko mën a jàppale ba mu nekk dara si réew mi. parce que kiy jël ay millions tey di ko def si réew mi te ñëwagul si réew mi kooku boo ko jàppalee kereel ko ay nit yi nga xamante ne ni ñu mel ni man dañ koy gëm. Mm-hmm. gëm ba nga xamante ne nii tey bu ñëwoon tey dana am ñu ko topp jëmmal ko may ko doole. est-ce mu woon bàyyi bu mu ne la carrément Euh, maanaam créer ma fan club. Mhm. moo gën nga teg nga toog ba si daal di ay fan si club daal di jënd si ay t-shirt. yàq sa xaalis foofu. Mhm, mhm, parce que am na yenn nit ñi doomu Sénégal yoo xam ne tamit. ñoo ngi fi. te pourtant créer leen ay ay yàlla dafa dogal tey man moo geet laa xam te yàlla dafa dogal ci moom la ma jubal daal. je comprends parce que ku nekk am na ka nga xamante ne nii moom moo lay pousser pour nga wax lii parce que. xama rek benn instant ni tey moom bu mu ko waxee loolu noonu tey su ko arrangé wul woon da koy rejeté mais def daf ci gën a appuyer ci loolu noonu fans club bi. Mhm. ma jël samay moyens bopp. Mhm. yaa ngi dégg régler cent t-shirt je comprends nga def ci ay photo am yaa ngi yaa ngi fi. Mhm. parce que man lu def lu nekk preuve laay def. gis nañ ko waaw mais dafa dem ba ci biir di ci boole ci bokkul. comme lan comme comme moo gét man personnellement. dama koy woo mu may coupé. su comprendre nga te man gëw ma kenn sama bopp laa gëm mais nag damay jàppale ku dul moo gét sax dama koy jàppale. su comprendre nga. man junneeg dërëm laa yemale parce que damaa yàpp million. ba may téye million xaw ma moo gét mais man dama bëgg nit bu respecté nit. Mhm. est su que comprendre nga parce que nit ki li muy dundee moo koy liggéey. man li may dundee moo koy liggéey maa koy liggéey. Mhm. c'est pas moo tey moom may jox li may dundee. Mhm. mais nit boo koy jàppale te yàlla tax day xam yow yaay kan man sama valeur man kenn du ma ko perte loo. yaa ngi dégg te moo gën bi ko ñëpp di daw di ko saaga. man rek maa taxaw défendre ko Sénégal ba daj. ñu ma ciy saaga ay ndey. parce que gis nañ que moom mhm. Adamo amoon nañu fa ay quelques problèmes. Mhm. gannaaw ba ñu waxee problème moo Viviane euh, nga daal di génn tamit daal di classe kii di Adamo daal di ko kii. waaw Adamo man maa ko classe. parce que man boobu gëm naa moo gën ba jusqu'à présent damaa gëm moo gën. est-ce que mhm. mais li taxoon may classe Adamo dama koy wane carrément tey man bu ma demee bay classe Adamo te mu mën a taxaw saaga ma ay ndey mhm. samay commentaire boo ko liiroon na ngay yéemu ay saaga yu ñaaw lan si doon saaga. est-ce que tey jii Adamo amul dëgg sa kaw. mais Adamo am na dëgg sama kaw. parce que moo tey bu fekkoon nit la tey moom dana reconnaître tey ñi ko gëm du reconnaître tey ñi nga xamante ne dañuy dundee moo gét moom dundal ñi nga xamante ne dañ dañ koy dundee dundaluñ ko. Mhm. gis nga nit dañ koy dundal ko doo ko dundee. man yaakaaruma ci Mo Gates est-ce que comprendre mhm. sama doole laa laa yaakaar. kon nga jàpp ne dafa am ñoo xam ne ñoom maanaam Mo Gates topp ko topp intérêt lañ ko toppee. ku mel ni Ketchup intérêt la toppee Mo Gates. parce que non Ketchup dama ko koy wax keroog daje nañ Saara Ba man ak moom si soirée Pape Diouf bi Ketchup daje nañ keroog Saara Ba si soirée Pape Diouf bi mhm. man ak moom. yaa ngi dégg mais moom moom weñ la ji koy weñ la yor quoi. fu tooy rek mu dem toog fa mais Ketchup ba bëgg naa ko ji koy weñ la. c'est que Ketchup dafa gëmul dara dafa gëmul dara. Ketchup gëmul dara. moom maa ko wax man maa Mor VIP Ketchup gëmoo dara yow mbootu duus nga. mais est-ce que du daf la gën a jege si Mo cadre gën a jege ah. parce que. Ah, xam nga defal naa tey man bu fekkoon tey damay war Mo Gates Ketchup ak Mo Gates am nañ fi problème. Mm-hmm. Ketchup di war naan Mo Gates daf koy wër pour ñu jubóo ñoom ñaar ma woo Mo Gates Mo Gates ne ma. day jaay combat boobu moo gën da kaa njëkk tëgg combat boobu noonu mm-hmm. mu ne day jaay combat moo tax mu ne damay wër di jubóog moom léegi leeralal defal vidéo nga leeral moo gën ne ma defal vidéo nga leeral ma def vidéo leeral tàq ci kawam six mille problème bi muy classe moo géet man Mamour VIP maa dox ak sama tànk taal sama oto dem ba gàllem na ko moo géet mi ngay classe ko saaga laa bëgg nga ko. mais nga baal nga baal ma si si si kii bi euh, maanaam fa nekk am na solo. Mhm. mais tamit il faut que tamit ñu taxawaat tuuti euh, ma sama si kàddu gi nga jàppee maanaam euh, nga baal ma si kàddu ñàkk fayda parce que mhm. tey jii est-ce que yow war nga dem toog naan maa ngi maa maa ngi kii di moo géet moo géet am làmmiñam am bëtam di gis est-ce que du woon kaasa boobu mais moom wóor naa la tàkkal ci kaw. mais mais moo gën woowu ma ne ma tàkkal ci kaw kenn mais yow la fa mu egg du man eggu fa quoi te moo gën mënta nekk li mu nekk yàlla def ko kilifa gi mu nekk ba pare moom muy wëlbatiku du topp topp ay nga xamante ne nii moom moo war a tontu. ñun ñi nga xamante ne ñoo ko gëm te gëmuwuñ ko dara dañ ko gëm te yàlla rek tax ah di ko topp di ko jàppale ñun ñoo koy tontul clash yi ko gars yi di clash. noonu la demee. mais moom instant yéen koy tontul mais moom respecté wu leen foofu. non moo tax ma ne la carrément man tey damay ñëw pour rectifier man moo gét man Mamour VIP man maay rectifier parce que yow yow yow nawloo woo ñu te ñun ku ñu nawloo woon du la nawloo quoi ñun toppeewuñ la million parce que ba ñuy am ay million ah danoo teel a dañ ko yeb mm-hmm. ay businessman lan ay liggéeykat lan ay commerçant lan je mm-hmm. comprends nga ñun newuñu yàlla kenn quoi suñ doole leen gëm mm-hmm. te ku ñuy dimbalee dañu siy fekk mais doo ñu dajaleeloo ay nit ay nit ñu dajale leen ba pare ah weeru koor daaw lan la ma def na ma dajaleel ay nit ma dajale ay nit yaa ngi dégg ci weeru koor yi dañuy def ndogu ma dajale nit ñi ba pare mu tas yaakaaru nit ñi tasaale sama yaakaar léegi ñu noonu jàpp ne moo ngi def ma envoyé xaalis te envoyé mu fukki dërëm su comprendre nga may wër bu ma wëree di fekk si suufu point mhm. doo fiy tëdd may jënd samay moyenu bopp ay chandise ak ay boisson mhm. vidéo yaa ngi fi di leen ko jox naan booy filmé leen ma moo gën moo envoyé xaalis bii nii. di ko sagal mais mais loolu loo si jublu woon. loolu tamit nit nit nit nit na ko maanaam. mais mais fekkee nit ki est ce que loolu nit jar na ko. xam nga nit yomb na mais nit ku nite moo jafe. moo gën. nit dama bëgg mu muy wax dëgg te nite. te gis nga ñun ñi ko gëm te nekk Sénégal gii ñun ñoo ko mën a wax lu koy jariñ quoi parce que duñ ko jay hmm. est-ce que comprendre nga ñun duñ ko jey benn yoon dañ koy wax dëgg ak la nga xamante ne ni bu ci jaaree donc ay ndaw lan mais luñ koy wax luñ koy conseil bu ci jaaree mm-hmm. ah day réussir total sénégalais yi ñëpp koy nangul mm-hmm. mais mënoo toll fële naan a lamp yi tàkk ba pare ñun ñi taal fii lamp yi xam nga nga ñu dóor ay sondeel duñ ko nangu <laughs> yombul de non <laughs> mais def ma ni maanaam yéen problème bi maanaam problème kii di problème gé moo géet problème maanaam ñu àndal problème kii di Wally Ballago Seck à chaque fois lañ gis ni euh, yéen seen biir sax da ngeen concurrence maanaam ñu ànd ak Wally Ballago Seck ak ñu ànd kii di kii di moo géet est-ce que ñu ni ànd ak kii di Wally Ballago Seck gën leen comme ni leen damin non Wally man ma ko balaame parce que depuis bi muy jotee moo géet ba par ba tey ma ci wax lu ñaaw parce que si réew laa nekk te man dama bëgg Wally Seck parce que dafa jara bëgg nag parce que li baax ñëpp bëgg la li naan lu tekki bari ndey mais nag ku baax ñëpp bëgg la te ñaari ginaar sax bu ñuy xeex am koo faral est mais nag moo geet sama féete mais Wally Seck dama koo gëm dama ko assumé pour li muy def si lu baax la nga xamante ne nii sénégalais yi d'accord nañ ci te am na ñi nga xamante ne nii yor nan tey li Wally yor ak njëkk koo way fuuf nekk ay kilifa ci réew mi ñëpp xam leen te li Wally ñi may def si financement ah ngir sénégalais yi kenn ñëwu ko cee def mais euh, wax nga ko sànq ba Babacar ak kii di Mo Gates amoon nañ fi benn problème. <coughs> waaw mais boobu tamit yaa ngi woon si Mo Gates. boobu maa ngi ci Mo parce que Babs tey moom demee ba ma koy envoyé samay vidéo mm-hmm. Mo Gates di wër sama numéro envoyé wu ko mu nekk ak moom même kër. je comprends nga mm-hmm. nekk ak moom même kër Babs nekk ci kaw ma moo nekk ci suuf ah ma koy envoyé samay vidéo war na ko Mo ba Mo Gates di wër sama numéro ba koy wër si EKM Seck di ko ko envoyé kon Babacar Diaspora lool moom la quoi. Mm-hmm. anamu tey jeexul. fii dara jaru fi ñaaw quoi. est-ce que nga man moo gën dama bëgg nga respecté ma su ma la wooyee nga may jël keroog lan la def na ma sa anniversaire kañ la téléphone baa ngi nii euh, vocal yaa ngi nii. sànq ma ne ko le 10 mars la anniversaire bi mu ne gaawal tontu ma ma ko mu def zéro di ma ñàkkal fayda man waaye diwu ma damay liggéey est-ce man waaye diwu ma nekk ma booy yi di taxawaalu man dama am xëy di wàcc yor sama njaboot est-ce que nga man nekk ma booy ba nga xamante ne nii dafa ñàkk fayda wala damay topp si nit di ko maral taatam du ma genre yooyu quoi man danga may respecté ñu ànd munoo ma respecté nga dem ma dem un point c'est tout. il se parce que dem nga tamit ba naan kii di moo gét dina nekk futur président du Sénégal. waaw dem na ba koy wax yow amul lu ànd ak. non parce que lu ma gëm la. ba jusqu'à présent lu ma gëm la parce que am na moyen bi il se comprendre donc jànk bi il se comprendre ah, demul noonu. du du moyen mooy tax. mais mais financement bi muy def ci sénégalais yi laa jàppoon ne kii tey bu ma dégloo. est-ce que financement bi nekkul ay dóor maanaam bëgg moom bëzam bëgg maanaam siiw tax muy def loolu muy def. gis nga loo bëgg bëgg bëz si ñi ci code pour nga am bëz ngay àndal mais ni nga xamante ne dañuy jël sa alal di ko dundee te xam nga duñ la dundal pour sa ñoo ñoon jaruñu àndal quoi su comprends nga nit doo ko xamul da nga koy wooye ee eh, te moo gën xamul sama jëmm ji quoi man ñàkkuma fayre fu ma dëgg tey xam na man maay kan mhm. du ma taxawaalukat damay liggéey gëm sam bopp mhm. kon moo gét dama bëgg mu respecté ma dama koy woo sax mu may coupé mel mhm. ni moom moo ma gën dafa ma gën ah te lu mu wax du ko def moo gën lu mu mës a wax defu ko yaa ngi dégg loolu taamun ci nit moo del wax dëgg quoi man Mamour bi maa la ko wax day ma wax dëgg je comprends nga man munoo may jëloo ay engagement may jël ay cinq jël sama 500000 ko ci ay t-shirt ba pare gisuma dara ma lay woo ah ma jël nga may coupé. des fois ay deux secondes ngay vocalanteeg man pourquoi pas nit da ngay respecté nit ki quoi. Mm-hmm. man soo ma respecté wul boolal al àdduna bi doy na. ñun ay élément ku tedd ki leen gëmuñu kenn ku dul sëñ Touba mm-hmm. mais dama lay woo si pour ngay jëfal Serigne Touba maanaam yow dem naa fii ba xel kom di la naan la jëfal ndongo yi kenn yónniwu ma man maa am sama gëm-gëmu bopp ne la jëfalan dongo ay conteneuru kaw ak ay fëgg jaay yëre sedd te boo bëggee li li ñu xam la da ngay jëfal Sëñ tubaa mhm. mais tullu toog naan na lamp yi tàkk bi lamp yi fay de barke Serigne ba bëggee lamp yi gën a tàkk da ngay jëfal Serigne Touba ah sondeel sax tàkkul fu mu toll nii ins bi nan la sondeel tàkkee man damay romb sax si mbedd yi di nëbbatu barke fu ma romb sax damay dem ba naan ma moo gét bàyyi lamp fay na de nu mu demee noonu yow man ma nekkal la ci gox diggante caare ba tëngéej ah ba jàmm gën ma nekkal la foofu noonu di béy sama waat sama la nga xamante ne joxuma fukki dërëm ah respecté woo ma man xamal man may kan quoi. yee. Euh, est-ce que instant yi da ngaa pare pour maanaam dellu si Wally Ballago Seck parce que ku jóg si moo gën yaa ngi si Wally Seck. non bon naa def ni moom. Ah, mais ki ko def ki ko wax la bëgg quoi. Hmm. ki ko def ki ko wax la bëgg. te lu na fànn kenn du ko jeex. Hmm. ah lu na fànn du ko jeex quoi. Wally tey ku gis na leen nen ah maa ngi koy nuyu au passage faramaaren boobu noonu man mbaa du ma nekk faramaaren sax <laughs> daw démissionné parce que man man li démissionné sax dem ci waale moom ko gënal quoi parce que waale xam na aku yelleef ak doomu aadama quoi parce que moom moom boo ko ñaqalee balaa ñaq bee fenn sax mu teg si yow sa loxo dara te donc yow séntu woo fa loolu noonu dool loolu yóbbuwul la fa mm-hmm. mais dafa xam maanaam aku nit est-ce que comprendre nga moo gét li mu ko défendre ci Sénégal fii kenn ñëmu koo défendre mm-hmm. ba défendre ko jafee laa ko défendre moo gét mm-hmm. man maa lan nga xam ne Waly Balago Seck indi ku baax la moo gét euh, day du wax ko. Waly avant moo gét Waly daa baax ndax li naan xëy baax yomb na mais dëgg see jafe mais baax baax dafa garaaw est-ce moo baal baax baax lu bi ngay def dama bëgg nga baax direct ñu ànd ak yow ci dëgg ak fula. barki Cheikhou Khadim boo ma joxee nopp bi laa lay wax nii de ah ma dama teg ci code réew mi nekkoo fi ñun ñoo fi nekk. est-ce que amul yu bees. déglu ma la xarit yu bees musiba musiba yu bees rek xarit yu bees foo ko gisee. gis nga say nitu dem ak lu mën a xew jàpp leen parce que un say nitu démb boo leen bàyyee lan la xamal danañ ko yóbbu feneen. te nitu dem man loolu tax Wally gën maa neex Wally Seck parce que ay nitu démbam dañ koy def la nga xamante ne da koy métti mais da koy gérer que bëggul ko dem yóbbaale lam la nga xamal. say nitu démb da nga leen téye pour ñu bañ laa yóbbu lan la xamal mais moo gee du def noonu affaire bu du alal gars yi xamal lu ñuy ànd ak yow ah dignité ak fula ak sa communication surtout loolu noonu quoi. noo gisee maanaam bu ñëwee fii si Sénégal bàyyi xaw a tuur bàyyi kii moo gën concurrence boo xam ne moo ngi am si diggante kii di Waly Balago Seck ak Sidi Diop. Sidi Diop Waly Balago Sidi moo ci kaw Waly moo ci kaw ñoom ñaar comme ni muy def nii Sidi comme ni ko Waly waxee dama koy assumer parce que nit ku amul concurrence ak doo góorgóorlu quoi est-ce que comprendre nga. Mm-hmm. Waly benn nit ba nga xamante ne li baax a tax ñu koy topp di ko roy. Mm-hmm. bay bëgg mel ni moom moo waral Sidi Diop di ko topp mm-hmm. mais Sidi tamit. mun na li muy def est-ce que comprendre nga Pape defaral say say butéel. da ngaa war a defar say butéel de boo bëggee dégg-dëgg. lii daal Pape Diouf boo déggee mën na ko defaral say butéel daa war a mel ni mbëri. xam nga mbëri mooy lan. Mhm. wut ay boy yu koy demal Guinée Bissau Casamance Côte d'Ivoire Nigéria kon ni ko gaa yëpp di defee. di ñëw di safalaat sénégalais yi bëggaat ko dafa mën a way am na mhm. mais yooyu sax ñoom yëkkatiwul ma ñoom ma ñoom il faut il faut ñu wax su comprendre nga yëkkatiwul la tamit lu tax nga taw si ne kii di waa kii waaw mu dem Guinée xaw ma il faut mu ne boo déggee loolu maanaam man dama ko yéene parce que li naan talent dafa nekk ci moom dafa tarbi woy da nga ñu nekk si kaw maanaam gàllaaj lañ ko mënee moo tax non mystiquement du ñooñu ñoom ñoo koy def dara mais safalante dafay gën a am quoi est-ce que xam nga man mën nga ma gën a baax butéel bu jëm ci yow te te defoo ko ngir man pour ma yàqu mm-hmm. mais butéel yi maanaam bu wuutee bu gënee saf maanaam yow ñu lay defar bayra ba nga xamante ne nii tey foo ko sangoo àdduna topp la mm-hmm. yow da ngaa war a dem wuti waat loolu noonu bayra boobu noonu quoi est-ce que comprendre mm-hmm. waali tamit xolam daf koy soutenir xol bu rafet mooy lépp quoi gis nga sa nit boo leen di ànd ngeen di liggéey da nga koy respecté nga koy yërëm quoi di ko dimbale si li li la yàlla di jox parce que nag yàlla bu la joxee maanaam yow yow yow nga am soxlay paan soxlay kaas yàlla jox la paan su comprendre nga war a séddale quoi. dëgg la aduna dara yaagul quoi. kon na lépp rafet. gis nga moo gét ci moom laay ñëwaat quoi. man na ma respecté man na xaman maay kan nan laa ko toogale Sénégal quoi te li may wax nay nekk dëgg su comprendre nga parce que nit mënu laa nekkal tey boo leen déggantee moo la woo wala boo koy vocal ay deux secondes nga koy vocal yaa ngi dégg boo wëlbati est-ce que lu ma wax du ko def moo gét lu ma ko def. mus mus laa jox xaalis. moo gét benn la ma mës a cinq cent trente cinq mille deux cent cinquante ma woo fans club bi ku nekk dix mille francs parce que man kenn du ma yóbbu. est-ce que comprendre nga ma woo fans club bi cent personnes lan ma jox leen ku nekk dix mille francs ma wëlbati gu jëndaat man samay moyen dix-sept cinq ñaata la ah. boole ko tiire ko ba pare di wëlbatiku di wër dof yi tëdd ci mbedd yi ma leen di jox ay lekk naa leen moo gét moo ma envoyé xaalis kooku du sagal sa nit. ki nga xamante ne respecté wu la dooleel dégg ma dem na ba reconnaître ne kii kat pour man sax dafa xatoon ah. mais ñi mu bëgg a activité yi mu bëgg a def ak mbër yi muy tëgg moo leen di tëgg yaa ngi dégg te du ma yëgal lu ma kii est-ce que comprendre nga man nag ku ma faalewul du ma la faale. est-ce que nekkul du Boucher moo nekk sa problème tamit. non Boucher man man gëw ma ko quoi man Boucher Boucher moom moom saxu duus la quoi Boucher saxu duus la moom moom gëmul boppam li muy affiché day affiché Kabo G Indo li muy affiché nekkul ci moom moom xaalis lay jaamu quoi Boucher xaalis jaamu yaa ngi dégg man loo tax man gaw ma ko duma ko assumé moo geet waroon na rus sax buusa joge ci moom ah muy wëlbatiku di ko toppaat di bëgg a jubóog moom ba buusa ñëwal di ko sinabal parce que amul len lu ko buuse du yokk moo geet moom mooy yokk buuse parce que moom mooy yor bi buuse wax la yor te bu fekkee buuse la muy wax ñun ñoo ko ko dàq fuuf junne yoon barke Sëriñ Bamba ko dàq wax gën koo xam temps ak heure. Hmm. moom day ratatati di te xam du contrôler la muy wax. mais est nga bëgg nekk ci place buuse tamit. non buuse man maa ngi moom boo ko ñu parce que man du ma fen ngir xaalis est-ce comprendre man maa ngi liggéey sa waay man damaa yëpp million ba may téye million boobu awma 15 ans dama tere fayatin sama life est-ce que nga man ay million ay ree la may def ju nekk dërëm laa yemale laa lay wax nii. yow Mo Gates génération léegi muy demee da ngay bàyyi définitivement Mo Gates ko pour jéem ko menace wala affaire la. non menace amu fa que ku nekk États-Unis nga nekk Sénégal mënoo ko menacer est-ce que comprendre nga. xam moo fi nekk man maa moom sama bopp moom moom boppam. yaa ngi dégg te bay la mu dund ba am sikki mën na cee dund ba dee moo géet bu satisfaire de man maa ko satisfaire man maa jël sama énergie def ko ci moom jël sama moyen def ko ci moom ngir Sénégal xam ko tey diggante postu caare ba tëngeej ah ba barñi ku ci xam moo géet agracement quoi hmm. su comprendre nga di dajale ay nit naan leen fans club bi et cetera et cetera di wax di woote ay réunion fan si mu marché ba léegi. moo marché ba tey mais nit ñi ma bëgg a jàppee fenn kat parce que nee nañ moo ngi daf may envoyé xaalis envoyé wu ma muy 535 mille jox naa leen ku nekk 10 000 man sama xaalis moyen nu bopp laa jël defaree ci 117. il faut comprendre nga di wër dof yi di leen jox ay lekk ay chandise ak ay boissons nan moo ngi moo ko envoyé di ko sagal moo respecté ma quoi. continue na la sagal. na ma daf ma war a sagal parce que nit bu lay tiitaroo da nga koy ndamoo quoi. merci jeex na ñu bàyyi rek nga tàggatoo. waaw maa ngi baaluwaat sénégalais yëpp ak di nuyu ñëpp. tamit di leen wax ne u jàmm gars yi duggee ci koor bi bisimilah rahmaani rahim egalee ko ci alhamdulilah rabil alamin mais sama xol neexul daal parce que ni ma nara a woore dana métti trop ndax moo dama ko mere barke Serigne Touba. mere nga ko trop trop. mere naa ko trop. ay lu ko ma ko défendre ay ñaata at xamu trois ans ma koy défendre nit. kooku mënu la reconnaître mënu la respecter. Mm-hmm. lu ay woote wax tuuti nii. te ña nga xamante ne man li ko mën a apporter satisfaire ko ko ñooñu noonu mënuñu ko ko mënaluñ ko ko. merci beaucoup ok merci beaucoup chers internautes ne nga waxoon leen à chaque fois homme de la semaine nii dafay demee à chaque fois ak leneen lu bees merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous de donner temps aux autres en attendant je vous conseille de manger beaucoup de bananes